Bouna sa et eh, l'équipe nationale du Sénégal jeex na tak dootuñu ko woowati té té té té loolu mën na am wala mënul am euh, gars yi nuyu naa leen bu baax wax leen asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, wax leen aussi tamit né euh, analyse mo moo analyse liste U23 et liste équipe A bi donc restez connecté lépp dina ko duggal donc il faut que ma xool si jour bu nek performance am ñi ma jot xam am lu xamante ne xamal naa ko sama bopp am am yu xamante dafa laaj gëstu bu gëna xoot ma gëna xol boy comme ça ma tégal leen ben analyse bu jaar yoon. mbokk yi démb gis ngeen ne liste bi génn na xam nga donc Aliou Cissé woo 24 jours mais gisoo leen si kii di Bouna Sarr donc euh, mu nekk benn affaire boo xamante ne ah, bon surprise la du surprise Bouna Sarr jéewul mais de l'autre côté de l'autre côté aussi nañ ne Aliou Cissé dafa bëgg Bouna Sarr daf ko mas a woo daf ko mas jox confiance boo nee na sax cadre am la d'ailleurs donc euh, pour vous dire que d'Afrique euh, moom la yóbboo ñu am ndam maintenant nag démb Bouna Sarr affaire bu mu amee pare dafa def benn compte Instagram am ne boo jiitee wara waroo bàyyi kenn gaañ dafa jël ay affaire yu lu quoi maanaam te ji bu ñu waxoon lu gaynde benn benn gaynde par moo ngi dem gaynde gi am benn euh, rakkaam wala benn nijaayam boo xam ne tànk bi dafa gaañ mu bàyyi fa te moom moom moo jiite comme que moom kenn moom moo jiite rek waru waru waru toog kooku boo jëlee exemple bi nga def ko ñu wolofal leen que nii si nit ak nit mooy tey ji moom euh, saa dafa gaañu woon dafa nekk si tolof tolof mu war ko jox tendre loxo maanaam Aliou Cissé xam ne ne saa si dafa jafe-jafe la nekk nii jéewul kël bu Bayern mu war ko jox loxo mu tourné ko le dos bàyyi ko fa dem jubal te nee na njiit warul mel noonu njiit bu ñu la soxlee dëgg mooy fi mu méttee ñu xam nga nga jël nit ki yóbbu ko loolu moom lii instant yi li leen wax nii lii Aliou Cissé xam na si Aliou Cissé lay visé lii moom amul sax demal te ñëw boobaa Aliou Cissé saa man maa nekk si tor tor nga fàtte ma bu ñu ma soxlee temps yi sa intérêt mooy loolu <laughs> nee na njiit du doxalee noonu mais man espérons ko quoi espérons pour man pour man Aliou Cissé sur le euh, sur la côté humain nii changé na si lu bëri quoi man gis man gis naa loolu quoi lu bëri teewu ko parce que man am naa ay information yu bëri yu xamante ne bon pour man dans le passé Aliou Cissé doonu ko toléré mais léegi defatu ko quoi xam parce que ñoom ñaar Sénégal moom moo nekk seen kaw mu ngi mel ni Habib Diallo mu ngi nii waxoon naa man amoon na am na yu mu si yëgoon nangam nangam mais quand même ça veut dire que même loolu réglé nañ ko entre hommes même même FIFA The Best bi limuy tang tàng tàng yi ñun commentaire nañ ci def nañ ci vidéo mom ak Sadio Mané mais xamna né mom moom ni ma ko xalaté won non noonu moom la wax conférence de presse man ak Sadio Mané yàgg nañ 2011 donc ñun ñaar mun ñu am problème. espérons que kii nii euh, Aliou Cissé bu gisee affaire bi mu bañé ko jëlé ne way ki def ma yeb ki boy bi kuma yeb la. xam nga affaire yooyu noonu kii man lay waxal nii kii nii nangam nangam kii am na ay temps kan soxla ko ma yóbbu ko coupe dafa jëloo ko trophée taxaw ci dootul ñëw Sénégal warul demee noonu quoi warul demee noonu nan la ko war a jëlee ah saa dafa mer rek parce que joueur bu nekk bu suñoon titulaire ngay nekk joueur nekk sax bu suñoon ñëw équipe nationale joueur amul joueur bu fii ku ne kontaan naa si liñ ma woowul garaawul am nañu am ñu xamante faala ñu mais ñu am ñu xamante ne comme benn mbay jaan ji tey ji bëggoon nañu woo ko mënoo parce que moo xam ne moo si appelé bi day am déception day mer mu wax ko c'est que ñeneen dañuy wax ñeneen ñi denc am ñu xam mën ñu denc ko am ñu xam ne il faut ñu génne li ne si ñoom pour ñu feex xam nga mais lii du ma def ma ko lu garaaw quoi man pour man suba suba bu soxla waatoon bu na sax rek ko rek xaj non fa dëgg li ñu ko wooyee du lu mu mérité la muy temps yi commencé na g xale la dafa ñun dañu nekk si logique dañu war a tabaxaat beneen équipe boobu itam wax mais équipe du ay heures trente ans ñoo koy defar quoi donte bu ne saa bu ñu ko woon man du ma du ma crier au scandale mais li ñu ko awul nii aussi nu si crier au scandale ñaar dans tout dans tout le bu woon bu ne saa dinaa dinaa si wax nii nii pare mais bu ko awul aussi du fi kii moo bu ne saa bon man nga am am am frustration man nga mer garaawul quoi li mu bind nii loolu bon bu la neexee nga jël que si nit ak nit dañ koy wax nit bu nekkee si tolof tolof tolof maanaam tey jii bu ne saa nga wax ñàkk wax tolof tolof la nekk parce que waa ñu ngi tek ñu ngi koy teg ci banc bi du jouer mukk xam donc loolu mom leer na du jouer te tamit bu continuer nii nii la na demee ba saison bi jeex du jouer Aliou Cissé ne jëm man comprendre la parce que la première temps il passé moy Bolivie bi dafa test no wa testé ko il faut mu xol ko c'est que boy tant que xoolu leen do xam li di nelaw ci ñom mais bu ko bu ko xol sa jadd à côté sax ëllëg bu ne mu waat bu ne sax mais il faut mu xol boy luñ luñ man xam nga Jokalante bu ñu ko essayé woon du fi mës a jouer kon Fodé Ballo-Touré mo fi nekk. ak Saliou Ciss duñu mës a xam Jokos mais booy il faut nga imposer leen ñu jouer Pape Matar Sarr booy ñoom Pape Gueye nii tant boo fa bàyyee ñi rek ñoom Cheikhou Kouyaté ñoom Gana nga rek nga fii ba suba ñun mën nañu ci yor joueurs yooyu a tabaxaat beneen ku nga bii di ñëw ay joueurs yi am ñu tabax coupe du monde bii di ñëw nele mais du ay joueurs 30 ans 30 mën nga si ñaar ñett ñeent rek mais te ñooñu sax pour man dañoo war a exceptionnel donc mbokk yi xam nañ ko xalaat xalaat ci commentaire wo wax leen noonu leen gisee loolu li li li buna saar wax si compte instagram ak noonu leen si jàngate et jàpp ngeen ne loolu war ko mën a xañ équipe nationale du sénégal ci commentaire def leen ngeen wax seen xalaat